xëy mooy guddi gi nga xamante ni moo gën si guddi yi sëñ bi layaat bi fa ngi guddi waaye bu guddi boo xamante ni yàlla nee na xayru sa moo gën junni weer man ni moom bi taxaw na ko dalal ko yàlla nit ñi ak bis bii nu nekk muy bisu korite ak bisu tabaski kon tey ñu ngi si bisu korite muy feet si jullit ñi feet bu texe feet boo xamante ni ak bis am njariñ am jàmm ñeen ñi nga xamante ni ñoo tap ñoo toppoon borom bi feet bu texe la waaye toppoon jàngale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla bam ba sël jabeem ak jandangaam bu am njariñ am jàmm xéewalam yépp yal ko yàlla bam ba sël suñu ko am na si yaakaar ndax jële nañ si téere yi ñu wax bis bii am muy bisu ko ade bu ñëwee nii génn nii malaaka yi ñu ngi ñëw toog ak ñun bëgg kontaan ñu dem sa yàlla présenté ko mbir yi waa yàlla malaaka jàmm ne la dee ñoom masha allah génn sol seen yére set ak ñun ba ko leen ñëw toog ñu dem sa yàlla dañ koy def ba xanaa pour màggal rek ndax yaa waxoon wala ko mil ay wala tukabbirullaah alaa maa hadaakum wa la'allakum tashkuruun yàlla waxoon loolu si loolu la nekk nag yàlla ñu wax leen lu mu bëgg wax laaj leen lu mu bëgg malaaka yi yàlla ñoom daal bëgg ñu leen leen lu ngeen baaxal seen àddina yéwénal ko yéwénal seen àllaaxira nee leen def naa ko ñu ñëw nee leen ñëw na mu ne def na ko kon yàlla ko def loolu ma wax yàlla na fekk mu dund si ñi nga xamante ñoo fi teewal yàlla muy malaaka yi fekk yàlla teew na fépp yàlla na ko présenté moom yàlla ni ma ko waxee yàlla yàlla ko yàlla defee noonu amiin yaa rabbal aalamiin mbokk yi comme ni ngeen ko xamee ramadan mu weeru koor dem na wéyu comme yeneen yi fi doon jàng loolu la ñu maanaam da nga doon wax ni appel mi ngi ñëw day ñëw dem màggal mi ngi ñëw day ñëw dem hakaza dawale aj Màkka ñëw na dem na umra ñëw na dem na maanaam yooyu xew-xewee munasabaat yooyu maanaam noonu ñu ñëwee dem noonu la ko war ñëwee daal di dem loolu nag jàngat bi lay mooy ne fii loo fi gis rek day dem maanaam àdduna noonu la yàlla bindee àdduna maanaam loo gis fii àdduna day dem wax naa ko àdduna bi paas loo gis rek si jeex lay mujjee maanaam yow ni ngay dund rek nga xam ne si jeex lay mujjee xam nga bi nga amee vingt ans boobu la bi nga amee cinquante ans maa ngi nii rek bu ma daan toogee ka jóge ko wax maa ngi nii tey dama toog sama benn tànk ndagam nagam ma wëlbatikuwaat toogaat beneen côté te loolu mosuma ko def maa ngi koy door a def tey ma xam ne cinquante ans moom moo dugg moo tax kon alaa kulli haal loolu la day gën a yàlla na ma fi yàlla gën a bàyyi ma am cent onze ans sans ordonnance wax leen amin waay waay yàlla na ko yàlla def defal leen ko yéen ñëpp ma xam ne lu may gën di ma di gën di am ay at maanaam affaire yi gën di wàññeeku nan ko misaal suñu mbaay bu baax mbaay nen macha allah xam ngeen ne ba muy am 40 ans di dem jàlloo bi ak bu ñëw wute nag léegi macha allah moom yàlla na dund trois ans trois ans ans ñetti téeméeri ak yàlla ko dund wax leen amin amin yàlla na ko dund amin yàlla balaa ak wér ànd ak wér macha allah bu ko defee loolu la kon jar xëccoo xëccoo bi jaru ko fi ŋaayoo bi jaru ko fi puusante bi comme ni mu koy waxee jaru ko fi maanaam kenn ku ne ni yàlla dogal si yow jeex na dogal na ko jeex na kon nanu yéenante jàmm dañuy yéenante jàmm di déglu digal kilifa yi di ko jëf ndax li si nekk moom mooy texe àddina ak ju àllaaxira loolu la Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam wax nee na leen lépp lu ma leen digal moo xam wax la wala jëf la jëf di ko cër di koy def làmmeñ di ko tudd maa si seen kanam insha allah du ngeen ma si du ngeen ma dab loolu mooy loolu kilifa kon moom bu waxee loolu war nañ ko roy wax yeeg jëf parce que li mu bëgg mooy adxilkum tariqan najaat dugal leen yoonu mu ci yàlla ko yàlla defal loolu rek la seen alimaam bu bëgg bu ko defee kon li ma wax rek nañuy dimbalante di jàppalante di taxawalante da ngay jaamu yàlla si yàlla mais da ngay yàlla si nit ñi jaamu yàlla si yàlla mooy koor jaamu yàlla si yàlla ak màkka jaamu yàlla si yàlla mais jël astu jël jël dara dimbalee ko néew doole dimbalee ko sa mbokku jullit dimbalee ko ku ñàkk kooku yaa ngi jaamu yàlla si nit ñi kon ñaar yàlla si yàlla ak jaamu yàlla si nit ñi jaamu yàlla si yàlla mën nañ ko mais jaamu yàlla si nit ñi nag macha allah gis nga bi mu ñëwee tey yàlla bëgg ñu jaamu yàlla yàlla nee na jaamu si moom ba pare buy woor weeram mais jaamu yàlla si nit ñi nañ génn asaka yi mënul ko gis loolu mooy jaamu yàlla si nit bi yàlla di dégle ponk lislaam arkaan lislaam xoolal rek ñetteelu ponk mooy jaamu yàlla si nit ñi mooy moom boobu mënta ñàkk moom bala nga ne ne fa mais tàmbale si xaami salaam kooku mooy jaamu yàlla si yàlla mais zakat nag mooy jaamu yàlla si nit ñi bokk yi nan bàyyi xel si loolu moom bu baax a baax nañu dimbalante nañuy jàppalante surtout bi ñu toll nag ñu am dañuy jox ñu am ñu am astuur dëgëral ki am ñaar téeméer na génn téeméer joxe ki am junni na génn benn ñaari téeméer joxe ku am un million ku am un milliard macha allah yàlla yàlla na mu jëf yëpp bu ko defee ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala koor bi dem yàlla na fi bàyyi ak jàmm waaye nag yàlla na yóbbaale coronavirus yàlla na ko yóbbaale déwén buy ñëw yàlla na fi fekk waaye yàlla na fi fekk coronavirus mbokk jullit yi Ramadan benn professeur la bu ñëw pour jàngal mu ñett cycle ndekete yonent salaa salaam moom wax ndeke njàng mi ñett trois cycle la trois cycles yi tubaab jël ko élémentaire moyen secondaire si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ko sàcce xoolal bi yonent salaa salaam di lim koor est-ce que ko ñetti xaaj ah kay ñetti xaaj la ko xaaj. boo fa la gaa yi sàkkee xaaj bu njëkk bi élémentaire rahma yërmande gi da nga ko jël cycle élémentaire bi de sinon rek di nga redoubler te boo redoubler di nga delluwaat daal di di nga defaat examen yaa ngi ci examen est-ce que am nga premier cycle bi mooy rahma muy yërmande ndax mi ngi ci yow ah kay wari na waaye koo buñ la gisee nga yërëm. di ñi am ñeewal rek xam na ni yow premier cycle bi jàll nga ko mooy élémentaire mais bu la bu fekkente ni doo yërëm kenn doo ñeewal si kenn jàlloo nit ñi xooloo bu ne doole xooloo kenn yow xamal nga raasib nga mooy amuloo moyen mooy ni redoublé bi da nga redoublé parce que awwaluhu rahma fukki fan yu njëkk yi yërmande la mooy premier cycle bi mooy élémentaire waaw at ma woo ko kon nga double fa yow kon demagoo sax sa xaaju ñaareel xool moyen moyen bi si yoon salaat wax mu ni wa aw satubu fukki fan yi si digg bi njëggal la ndax da war a passé moyen parce que élémentaire mooy nga am certificat moyen pour nga am BFEM est-ce que am nga BFEM am nga BFEM ñu lay tax mais BFEM bii nag laa wax maa ko njëggal est-ce que am nga ko daan lay nag koor gi jeex na ku la tooñ nga jéggal axakay kon nga mooy am nga besel mais ku la tooñ mi lim nag chef de quartier day sax bàyyi leen chef de quartier boo la tooñ yow la sa bët maa ngi dem police ana wa awsakum rahma fukki fan mu def nga ñëw si secondaire yaakaar naa mooy bac bu ma ñëw ngeen ngeen bëgg bi yaa ngi ci secondaire lay mooy fukki fan yu mujj yoon salaa salaam ni la fexeel ba am ci diplôme bu ñuy wax bac mais du bac bii de bagu xetxol mi na naan wala sa bopp wala sa bopp si safara est-ce que am nga ñu xool ndax yaa ngi doon sa bopp mooy wala jaam man naa jël jaam am na ba léegi xam nga fan maanaam boo duggee si pexe wala Dakar wala oto boo mën a dugg jëm ba cent franc waaye am lu benn ginnaaw mu joxe cinquante franc emprunté bi ni ko force cent franc lay joxe nga doon yeneen cinquante ñu nekk fa di xulóo ni ba bi nekk police léegi yow boo fi fukki dërëm nga joxe ko daf nga xeex kon mi nan naa goree ko safara waxuma la goree ko safara mais yaa yëpp goreel nga si safara ndax ñëpp war na def police suñu liggéey yu tàgg soxla yi tam lépp soxla suuf gidral suuf gidral kon ñu def nga nga sa nga sa bopp goreel sa bopp goreel waa client yi si biir ko kon ndekete goreel jaam ñu jeex na ma ni jeexul demal si oto yi ba nu laaj paas am ku mën loolu nga xam ni goreel jaam des na boo lànkee tey sa fukki dërëm yi nga war a mottale lànk bu jaral la mu dem ba police waaye yow laaj la rek mais mooy day firndeelu amagoo diplôme bac secondaire doo jàng yow fi mu ne université nga dem mais doo dem université Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na yow waroo dem sax moyen wala secondaire waroo dem sax élémentaire warul fa dem bay dem sax université parce que lii nga seetaan nii doo am bac ay ah, yow redoublé ko kon ñett yaa noonu ndeke Seydina Muhammad mooy muallimul muallimin mooy jàngalekatu jàngalekat yi li may wax saa su ne rek li mu waxoon ni innamaa bu'istu mualliman yàlla daf ma yónni pour ma nekk jàngalekat yi ñoo koy gëmee nag mooy jàngal mooy mel ni ni xoolal bi muy jàngale ñu naan fukki fan yu njëkk yi yërmaande la fukki fan yu si digg bi jéggal la fukki fan yu mujj ko rafetlu sa kanam dëgg te lële lañu jujju lële lañu jàngale cycle élémentaire cycle moyen siibu secondaire loolu la si noonu xam ne sallallahu sa wa sallam jàngal ko bu bàyyi xel baax a baax mbokk yi comme ni ngeen ko xam ne jafe-jafe yi ñu nekk fitna yi ak balaay ak musiba yi jàqare yi ak yiitaange yi nga xamante ne ñu koy dund tey jii te loolu dara waralu ko dara dara waralu ko lu muy coronavirus bi nga ñu xam ni ki nu ko teg moom mooy borom bi subhanahu wa yàlla la yàlla moo nu ko teg ndax moo ko wax wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa moom la waaye li muy nekk nekk moom nag olof am na lu mu wax nee na dogal boo gis gis sa tànku boroom dogal boo gis gis sa tànku boroom yàlla mooy alxaadir mooy dogal lépp moom la bu wax laa bu ñu seetlu xaj bi nee na maay dogal lépp waaye am na lu war a wax de nan bàyyi wax wala boobu nee na dogal boo gis fekk fa tax bu borom ndax doomu aadama moom moo sabab mbir yi ala kulli haal coronavirus musiba yi balaa yi doomu aadama génn si de yàlla moo ko wax ne insaan la gëm nit dafa dëgër bopp ndax dafa bari lu muy mooy yàlla bari lu muy def ay bàkkaar nit jóge na si nite jëm si niteeru ñu fi rafet nit nit jóge na si cadre wala xadd naa bani aadam jóge si wala xadd xalax naa insaana fi axsani taqwiim jëm si summa radadnaahu asfala saafiliin ak kon nit mu ngi noonu moom moo sax parce mun naa torale lu nekk bokkaale du ma ko torale du ko baaxee lan mooy bokkaale yàlla ni góor jigéen bii moom laa bind pour moom nga war a def ànd ak moom nga ni mënoon góor sa mënoon góor ngay jël pour séer moom ànd ak moom loolu mooy bokkaale bokkaale parce que da nga bàyyi li yàlla tëral dem tëral sa partenaire mu ànd nga tëral tëral loolu si xeetu bokkaale yàlla léeg-léeg nit dem na ba am ko si ngoon jigéen ñu ngi ko yow loolu lan la farataale mu def ku ci moroomu jigéenam ni moom ni moom lay séyal xalaas loolu yaakaar bàyyi may sa def ñu bàyyi may li ñuy ñàkk ñàkk xel bàyyi moom bu góor ak bu jigéen kese ngay gis gis la moo def wax naa sax ko dem doon def dàqal na si ni ak ardoise lu si dàqal ne muus man leen ma laaj leen lu tax defatoo leen loolu ñu tontu ma ni ma parce que nit moo koy def moo tax mu bàyyi ko ko wala jël doy na kon mbokk yi foofu lan toll ci biir bàyyi may liñ doon def bàyyi nan ko ndax nit moo fa àgg nit ngay gis góor a jigéen ñu taxaw si mbedd yi ak wala boo mooy ñu sax ñu dem bay say jaxasoo si mbedd moo tax xaj yi sa tool la ñu koy def ndax nee na lu bon bàyyi may ñu def nit ñi ñu koy def bàyyi bu baax moom defee loolu bàyyi si xel bu baax a ah wax naa ni yàlla na ne dogal yooyu man maa ko dogal si seen dox waaye lenn rek laa bëgg la am na xam yàlla joxoon ne la musiba yooyu ak balaa yooyu ñu tudd la yàlla ne bu ko tegee seen ngeen jël suwaat la am na yàlla joxoon pour ngeen jël suwaat kasala ndax olof wax na ko olof nee na nag wér na doom mais bari ko ak saa ko naka noonu tam yàlla teg na lu dugal bi jël lu mel ni coronavirus teg na ko mais nee na bari dafa bëgg lu delluwaat parce que affaire yi ndox mi ñu bëgg yàlla nee na mbir mi ñu bëgg mais ñu ko ci xaar ak zango affaire yi day waar dund bi day waar nit ñi ñu defee jël sax ñu deful noonu parce que dañu wax loolu ñu jël ñu ñu des ñu jël am na bu ëpp moo sa morom xal mais nit ñi ñu des moo raw ñu jël ñu des si biir géej nit ñi ñu des moo raw ni bàyyi ñu des si biir foole ah ba ngi imaam ba dem set ñaan doomu aadama yi wàññeeku waat nag ndax bu demee ba lu mel ni am feebar bu mel nii la xam ne mu jël moom ndax xam naa daal war na dinañ changé incha allah non buñ changé wul ma bàyyi àdduna buñ jógee si feebar bi changé wul àdduna ñu bàyyi ko daal vraiment nekk si biir suuf mooy gën bu nekk si kaw suuf man maa ngi wax a bu dee ni corona dem te changé wul suñuy jikko suñuy melokaan suñuy jëf ak suñuy wax ñu nekk si biir suuf moo gën ñu nekk si kaw suuf nan siy bàyyi xel bu ko defee yàlla doo mën a def lay sa dana si rabbal si waay amul benn yàlla bu dul yow defal lu la neex laa man jaa wala man jaa ilaa ilay amuñu benn wóolu waay amuñu fenn fu ñu mujjee lu si yow yàlla wàcceel junni coronavirus si yow la dem jëm si yow la ñuy laxam amul kenn ku dul yow borom yow rek la maam yàlla ñu yërëm yàlla ñu jëkkal yàlla ñu xool bëtu ñeewant bëtu ñeewant bëtu ñeewant yàlla ñu ko xool yaram benn borom xam-xam nee na coronavirus dafa ñëw pour entretien adduna def entretien adduna entretien monde waaw pour organiser waat ko pour setal ko pour laabal ko pour raxas ko pour fóot sëriñ Ablaye ñu doon wax fóotum yàlla bu mu xotteeku atlas kon yàlla nga def day fóot adduna entretien lay def adduna moo tax affaire demee nii bu ko defee pour jëlaat dund gi teg ko si yoonu mucc la bàyyi laa waxoon àdduna ko mu tàggee xam ne yàlla naa leen teg si yoonu mucc ndekete yàlla dafa bëgg a jël àddina te gaar ko si campagne entretien lay def comme ni nga amee sa matériel sa oto wala lenn nga jëm def ko entretien waaye nag à la saa ñu naan joxal ma tamit di ko xam moo tax yàlla moom moom moom àddina moo ko xam moo tax moom rek moo si mën a def entretien coronavirus moom rek la entretien lay def wallaahi boo jëlee sa oto bi daf def jox ko ak téye di nga xam ne yàlla ko dina santaan waaye boo jëlee sa télé damoo def ko mën a yéen waaye nga def di ko def ab mécanicien wala ab mën wala yi nga xam ni yàlla ñu leen def la santaane parce que joxoo ko ci ko moom yàlla na moo moom àddina moo tax moo koy defal entretien si la nekk bu ko defee loolu bàyyi sa xel bu baax a baax parce que nee na cause jaww ji sax cause oxygène dafa demoon ba yàq ndax usines yi ñu doon flotté seen kii seen poussière ak seen saxaar yi dafa demoon ba àddina oxygène bu baax sax moo ci suuf mais gis nga bu yàlla téye affaire yi ba oxygène ñëwee xam ne li si yëpp daanaka ñu bëri taxaw nañu mais nee na cause oxygène bi maanaam asamaan li nga xamante ni moom moo ñu tiim ñu suñu noyyi léegi na sax ba oxygène bi mais sax na kenn amaat na maa jàpp kon gis nga kon mbir mi am na fu mu bon mais am na mu baax kon loolu ñu bàyyi si xel bu baax a baax loolu la benn borom xam-xam waxoon ah yéen nga xamante ne ñoo bokk gëm yàlla ñoo bokk jullit ñi bokk bokkal yàlla bokk jóge si yàlla bokk jëmal si yàlla li waral mooy torox man torox torox mu ànd ragal yàlla jéggul yàlla ànd ak ay jooy ñu tuub ànd ak xeebu ñu tuub ñu tuub ba ci sama bopp loxo yi borom bi wa taala te ndax waxtu tuub waxtu delluwaat si yàlla jot taxaw si kanam borom bi teg ko teg ko màggal ko kañ ko comme ni ngay def dégg nga sa ci jëwel bi muy def jéeram noonu la war a def yàlla ko waral takk ko ci yàlla yàlla yaay daf ma ne ko tudd assalaamu muminin bu xëy al aziz jabbaari mutakabir subhanallah rahman ñu wax ko ni ko yow la ak nag ila yaay yaay ma ne yaay yaay borom yaay ne yaay borom asamaan yaay borom suuf yaa moom lépp yaa moom jënd moom moom asamaan moom jënd lépp wax ko wax ko wax ko takk ko takk ko takk ko macha allah waaye bu ñu defee noonu ñun ñëpp ñëpp ku nekk ci responsabilité coronavirus man maa tax mu am ndax ku nekk ci responsabilité ni coronavirus man maa ko fi indi ba noppi jëkkul yàlla ko fi ma waxee léegi corona yàlla mu yàlla boole defal ñu ñëpp macha allah yàlla mu yàlla boole defal defal ñu ma tàllal loxo yi ñaan borom bi subhanahu wa taala ba noppi ñu rafet jot suñu diggante ak suñu borom ànd ak yaakaar ànd ak ni yàlla dina nangu suñu ñaan ànd ak wàcceelu ndax wa ma ne xaw dafa am wax wax ku wàcceelu si yàlla yàlla bay na la te dinaa ñu maamu nee na alayhi salaatu wasalaam bu leen waxee lu ci seen bët waaye nekk leen diggante yaakaar ak ragal loolu yàlla na yàlla boole defal ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla na yàlla nangu suñu koor yàlla na yàlla nangu suñu naafila yàlla na yàlla nangu suñu leelatul xatar yàlla na yàlla nangu suñu asakay suñu koor yàlla na yàlla nangu suñu julli yi yàlla na yàlla nangu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala si nekk si njëkk ci koor gi ak yërmande yàlla yàlla seen bët la suñu waaye la sa nekk si jàmm xéewal ak barke yàlla yàlla sa ba sa ko sañuy dund yàlla na yàlla waxtu si feebar bi comme ni mu waxtoo Moussa naka kay ah masha Allah kon yàlla na yàlla waxtu si feebar bi comme ni mu waxtoo Moussa si bat moom foofu moom mooy ngir jël ko yàlla yàlla sàmmali noonu waxte noonu ñu ngi yëkkati kàddu yi gërëm jëmee ko si yi wax dëgg yàlla ñu jara gërëm la ñu jara sàkkal ndax gis si dëkk bi si réew si àddina ñu ngi ñaan yàlla subhanahu yàlla yàlla musal si feebar muy coronavirus bi yàlla بل من أخبرنا من الذين يرون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين